بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gannaaw sant borom bi tabaraka wa taala noo ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom dolli ko xéewal ak yërmande moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ku topp seen yoon ba keroog saa di taxaw kon nu dellu si waat ci lël bi ni tey mu nekk juróomeelu fan bi nga xam ne ñu ngi nekk di topp téere bi di tuxfatul mushtaq arbauna xadithan fi taskiyati wal axlaaq ki ko bind di ali bin mahmud al misri xafidahu llah wa raah ñu ci ànd ak al ustaad omar jàllo xafidahu llah wa raah nekk téere bu am solo boo xam ne li muy jàngale mooy sellal bakkan ak ay jikko di fàttali rek ne li tax ñu tànn téere bi nekkut lu anodin maanaa bu ngeen xoolee thème général bi moom mooy la nécessité de la réforme individuelle et collective maanaam ñàkk man ñàkk gim mënta ñàkk jullit bi di doxee ak ñaari tànk saa su nekk muy jéem a defar boppam jéem a baax tegu ci yoon waaye tamit jéem a baaxal jéem a jubal teg nit ñi ci ci yoon kon ñi nga xamante ne teewewuñu woon jotaay yi weesu ñu ngi yemoon ci xadit numéro 18 te incha allah ñu ngi war a dugg ak ustaad ci alxaditu tasia achar mooy xadit numéro 19 kon di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yombalal ko ba li mu waaj incha allah mu joxe ko nam gën a baaxee sunu borom tabaraka wa taala nangul ko kon fal yatafaddal mashkuran mahjura
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين من جل سواد جسمت سنة برم سبحانه وتعالى بجلتي سنة يرمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دين يمبقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. ñu ngi jeexale woon ci xadis numéro 18 ci téere bii di arbauna xadisan fi tazkiyati wal axlaaq mu nekk xadis bu am solo doon wax ni doomu aadama su ko yàlla xàññee ay bëtam mu nekk koo xam ni muñ na ko te yàlla tax sunu boroom ràmpalaa paye ko ko àjjana ñu waxoon ni bët dafa nekk benn membre benn organe bu am solo ci doomu aadama moo tax sunu boroom bu ko nangoo nga nga muñ ko te yàlla tax jàmbatoo kaasoo naqarluwoo ko ciipatoo dóoroo ay merte ah waaye da nga am soumission nangu ne sunu boroom moo ma ko teg parce que bët naa leen ne xéewal ci xéewal yi gën a rëy yàlla mën a defal doomu aadama ci la bokk xéewal yi gën a rëy yàlla subhaanahu wa taala mën a defal doomu aadama ci la bokk xéewalu bët suñu la waxoon estimer ko estimer ko wala nga valoriser ko wallahi mënoo ko valoriser parce que bët bi doomu aadama am grâce ak loolu ci la doomu aadama mën a defaree ordinateur mën ci defar portable mën a defar oto mën a defar avion nit ki su amutoon bët du mën defar dara lekk li muy lekk sax pour mu togg su amul bët pour mu togg yaakaar naa dana jafe de wala de su amul bët di nga mën a togg lekk sax bu normal soo amee bët ci ngay mën a lekk normal boo amul bët sax doo gis sa lekk day xaw a doy waar des fois foog ñu jàppale la ci lekk bi dafa foog ñu tegal ainsi génn doxi say soxla waxaale wu ma waxaale wu ma loolu moo tax borom bi loolu la koy fayee foofu lañ jeexale woon démb tey ñu ñëw ci alxadisu attasia achar mooy dix-neuvième xadis boo leen seetloo xadis yi ñuy jàng jàll yépp ak bunt yi xadis bu ñëw wala chapitre bu ñëw da ngay jàpp ni yow mi yaa ko gën a soxla sax yaa ko gën a soxla yow mii di wax sax yaa gën a soxla ñii di déglu ñun ñëpp danoo soxla li ñuy jàng fii parce que xadis yi lan lay lan la dafa aju ci bon comportement te ñun bon comportement ñoo ko gën a soxla ñëpp dañ ko soxla bon comportement nit ki daf koo soxla quotidiennement daf koo soxla 24 heures sur 24 pour say jikko baax nekkul loo xam ni lu mën a xaar la nit ki jikko ju baax ci moom dafa nekk lu nécessité dafa nekk loo xam ni c'est tellement nécessaire pour nit ki nite pour nit ki normal pour nit ki ak njullitam mat imaanam normal digganteem ak yàlla baax digganteem ak jaamu yàlla yi baax. il faut comportement bu baax moo tax comportement bu baax nekkul lu ñuy xaar waxoon naa leen fi nag ñaari xaaj dafa am jibil li koo xam ne yàllaa ko bind mu baax yaru am jikko yu baax da ngay gis koo xam ne sax dundul lislaam nekkul ci diine nekkul ci sunna mais nga gis ci moom ay ay qualité ci wàllu ci wàllu comportement nga gis waa ji dund diine di góorgóorlu mais nga gis ci moom ay façon jikko yoo xam ne da ngay posé wu question jikko yi nu mën a nekkee ci nit lu tax mooy benn bi mbaaxu yàlla la yàlla koy baaxe ku ko neex beneen bi du mbaaxu yàlla mais yow yaa ci éduqué sa bopp yow yaa ci éduqué sa bopp jéem ci entraîné wu entraîné ci boroode ci ba jikko yi ne ci yow bii yàlla la koy bindee bii yaa koy seet yaa koy wuti kon bii jibilli la mais bii iktisaab bi la yaa koy iktisaab yaa koy fàggu moo tax moo xam ne wax ne al al al al xoloku nawaani jibilli wa iktisaab bi maanaam day am ay jikko yoo xam ni yàlla la koy binde kenn ku nekk am na jikko boo xam ne yow dafa ne ci yow danga ko judduwaale amaana sa papa nga ko jëlee amaana sa yaay amaana kenn ci famille bi amaana sax yow ci famille bi yow rek yaa dañ naan famille bi diw rek moo ci mel nii parce que jikko boobu yow yaa ko mais am na jikko boo xam ni amoo ko te gis nga ne qualité la l'islam da koo sàkku ci yow da koo soxla yow sax da nga ko soxla kooku da ngay travailler sa bopp yaay travailler sa bopp jéem koo jéem ko acquérir jéem ko am jéem ko acquérir yaay liggéey pour am ko xadis taasi achara bi li ñuy jàngal mooy ar rifqu ar rifqu suñ ko waxee mooy nooy mooy nooy nit koo xam ni com compliqué woo métti woo jafe woo naqari woo deret naqari woo nekkal naqari woo dëkkal ah nit ko rifqu contraire am mooy al uqda mooy compliqué nit ko xam dafa compliqué dafa compliqué su ngeen nekkee foog mu won la foog mu mbugal la ci complication bi jikko complication bi foog mu mbugal la ci bu ngeen nekkoon yéen ñaar loo aay aay aay moom ni mu compliqué mooy yow aayo te pourtant ba moo ci yàgg na aay loo ko gën a xam-xam mbir non il faut mu génn lay erreur il faut mu génn lay erreur lu mu am aussi loolu am na problème moom dara normalul ci moom lépp compliqué comme moom daa compliqué lépp war a compliqué dara du yomb ci moom mais a rifku mooy nit koo xam ne dafa facile nit ku facile nit ku yomb nit ku nooy koo xam ni situation lu mu métti métti lu mu compliqué compliqué lu mu jafe-jafe dina ko gérer sans bruit ni tambour ah sans bruit ni tambour dina ko gérer coow du am kenn du dégg ba solutionné ko génn ci ak dàq mais am na nit ñoo xam ne yàlla mayu leen loolu moo tax rif ko comportement bu am solo day may nit ki mu am lu ñuy tuddee li ngeen di tuddee savoir vivre day mën a am savoir vivre ku foo fekk nit ku amee rif mooy nit ku nit ku dal nit ku posé dafay am savoir vivre mais contraire bi nit ku compliqué du am savoir vivre. comme moom dafa compliqué moom vision bi mu am ci mbir yi soo ko amee ngeen ànd soo ko amul doo am jàmm ni mu mel noonu nga war a mel soo ko melee nga am jàmm soo ko melul doo am jàmm li mu bëgg moom nga war a bëgg soo ko bëggee xëy soo ko bëggul doo am jàmm lim sentir da nga kaa war a sentir moo tax soo la nekkee da ngay dund jahannam enfer ngay dund ak moom xam nit ñoo xam dañoo métti des fois day nekk jëkkër jëkkër ju métti yàlla na too ko jabar ju baax mais moom moo compliqué. bu ko tegalee ndékki bi tey mu ne ko daa tàng bu subaa bu seddalee mu ne ko daa sedd bopp bu indee tey mu ne ko suukar si daa ëpp bu limité suukar si mu ne ko suukar si dafa manqué bu ko tegalee nekk defalal sa bopp suukar mu ne ko lu tax defoo ci suukar léegi kooku nooy def ah kooku munoo adapté wu ci moom munoo am bànneexam parce que amul rif dafa métti te des fois ñu ko métti noonu la des fois yaa nattul nga am patron boo xam ne patron bi dafa métti. yaa dàq liggéey ci société bi wala ci entreprise bi mais loo defar moom boo ko ko joxoon mënu ko defar mais soo ko defartee mu ajusté ko non fii defal ma fii tuuti ajustement fii wàññil fii yokkal fii nga dem defar mu ne non bii dafa ëpp et puis waxu mu ne woon nga wàññi lu toll nii nga ñëwaat mu ne la non affaire bi mu yàqu na defaral beneen loolu mooy nit ku compliqué métti des fois nga am yaay joo xam ne yaay ju yaay ju yaay ju compliqué métti boo toggee mu ne la li nga togg nangam. ah boo soloo mu ne la non sa yére bi nangam boo demee fenn mu jox la heure soo ñëwee heure bi mu ne la mënoon ngaa gën a teel a ñëw defoo ko woon dara te yow heure bi mu la joxoon ñëw nga ko c'est-à-dire mucc ci nit ku compliqué amul fooy jaar bu mucc fooy jaar bu mucc amul. des fois yàlla na toola professeur boo xam ni moo gën a compliqué kaa ñu compliqué loo def baaxut boo trouvé woon li gën a kii au lieu que mu encouragé la moom bokkul ci méthode am muy encouragé parce que dafa compliqué moom kenn aayul du encouragé kenn li nga def ni peut-être sax nekkul sa xam-xam moo la ko may da ngaa tànd pour am ko moo tax jamais mu félicité la pour moom da ngaa tànd nii rek ba am affaire mais du sa xam-xam moo la ko may wala sa sérieux ba pare pour moom kenn sérieux wu ba pare nag pour moom yéen yéen a am problème mais moom dafa normal compliqué wul mais yéen yéen a compliqué loolu moo gën a doy waar ci mbir mi ku compliqué moom danaa ne yow yaa compliqué alors que moom daa compliqué ba fees complication mais moom jamais mu nangu toujours yow yaa compliqué ki ki ne ki mu nekkal en face kooku moo compliqué ak a métti moo tax boo dund ak moom boo moytuwul da nga yenu say bagage dem parce que tellement doo àttan rythme bi mu lay teg mënoo ko àttan dafa métti dafa métti trop. alxadiis kon attaasi achar arrifqu mooy nooy ak dal mu ne ana Aïcha waxoon nañ kan mooy Aïcha waxoon nañ Aïcha mooy kan duñ ci ñëwaat. zawji nabi mu ne soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ani nabi jël na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne inna rifqa naka nooy nooy laa yakunu fi shay'in du nekk ci dara illa zaanahu lu dul da koy da koy matal zaanahu ay akmalahu wa rafaahu da koy matal da koy yëkkati da koy jox auteur wala yunzau min shay dal doo ko dindi ci dara looy def boo ci dugalee dal day mbir ma day mat ba pare mbir mi day day day am ni nga ko bëggee day yëkkati li nga ci bëggoon di nga ko am résultat final bi nga ci soxla woon di nga ko am mais looy dugg soo ci dindee dal dugal ci ëppal dugal ci xët-xët dugal ci fët-fët dugal ci doole dugal ci complication illa shaano lu dul day nekk loo xam ni dala cay da koy da koy wàccee day wàccee mbir mi wàccee bi mooy lan mooy jubluwaay bi li nga ci bëggoon doo ko am ah day dalay échec loo ci mbir mi xadis bi dafa am sababul wuruud bu dee aaya dañ naan sababul nuzul mooy cause bi tax aaya bi wàcc bu dee xadis dañ naan sababul wuruud mooy tax xadis bi rot xadis bi yaa Aïcha radiyallahu anha dafa am benn gëléem bu ñu ko mayoon gëléem gi bi muy door a ñëw yaa Aïcha miinu ko gëléem gi dafa compliqué yaa Aïcha pour mu war gëléem bi noonu lay daj su bëggee war gëléem gi su defee nii gëléem gi tourne nii bu defee nii gëléem gi tourne nii bu ko taxawalee ba jàpp ne kii ne bu nee nii gëléem gi changé waat position pour mu war gëléem gi difficulté yëpp lay daj benn bis mu ñëw bëgg a war gëléem gi yonent bi taxaw di ko xool mu kër kër sonn mënta war gëléem gi mujj gi mu jàpp di yëngal buum bi di dóor fii di tourne di xëcc di forcé yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyi ko ba mu xaw a sonn mu ne ko gis nga xam nga kër kër gi yëpp sonn ah ne ko daa da koy wax xadis inna rifqa laa yakunu min shay'in illa zana wala yunzau min shay illa sha soo àndoon ak dal rek dal naxanteeg moom ba gëléem bu compliqué looy def da ngeen naxanteeg moom des fois nga gis benn waay bu yor mbaam bu compliqué mu jël yat bi dóor fii nangam di xeex ak mbaam mi te mbaam mi amul xel mbaam mi day gën a tàng gën a métti wéq bu ko waree ba moytul balaa muy àgg fa mu jëm dina ko waŋñeetu dix fois ci yoon bi wala mu daaneel ko wala mu daw bàyyi ko fi lu tax mooy naxanteeg moom la waroon def naxanteeg moom la waroon def soo ko deful du sotti. soo ko def du sotti moo tax mu ne inna rifqa nooy laa yakunu fii shay du nekk ci dara loo ko dugal mbir boo ko dugal rek dara loo ko def illa zaanahu du dul dakay matal yëkkati ko ba jox ko hauteur wala niveau bi nga xam ni moom la waroon a am wala nga am ci la nga la nga ci bëggoon waaye wala yunzau duñ ko dindi duñ ko rocci min shay'in ci dara lépp looy def dugaloo ci dal ëppal nga ci dugal compliqué métti doole forcé jaayoo mbir mi xel àndut ak dal illa shaanahu lu dul da koy yàq da koy yàq nga perte ca la nga ca waroon a am kon xas bi lu ñuy jàngal mooy bokk na ci axlaaqul muslim mooy jikkoom jullit bi mooy da ngaa war a dal situation bu ñuy wax nag dal nit ki mën naa dal nii mais pour nga xam nit ki dal na mooy problème dafay présenté wu am na koo xam ne mën naa dal sans problème mais moment wu problème moom day jaxasoo moom moom bu problème amul day dal mais dal boobu taxul ñuy wax dal boobu kenn soxlawu ko parce que problème bu amul nga dal moom baax na dal bi ñu soxla mooy problème am problème am dañu ko xam ne bu nekkee ci problème problème bi lu mu métti métti day dal da nga koy saaga mu gérer saaga yi nga xas ko mu gérer saaga ko baay saaga ko maam saaga ko tànd saaga ndijaay mu dal ah nga fa attaqué ko tuumaal ko accusé mu dal mais am na koo xam ne bis boo ko defee ak moom ah li nga ko wax moom la lay delloo yokk ci wis la may la bonus nga dem am na koo xam ne du doxalee noonu. dal googu moom lañ soxla ci nit nga gis koo xam ne tey boo ñëwoon attaque ko tooñ suy ñëw di lijjanti mbir mi day ànd ak dal ñëw laaj la nan la demee ainsi de suite wax ak wax a wax defaa nga gis ko ci diggante doom ak parent problème day am nga gis waajur boo xam ne dalut dalut ba doomam su amee problème doo ko nangoo wax lu tax mooy da koy gonfler méttil ko indi ay complication indi ay jafe-jafe des fois da nga gis doomam day sëy fenn mais su amee problème ñemewu ko wax yaayam day xal keneen ku mu waxal parce que yaayam dalut moo tax dal dal dafa baax ci nit posé dafa baax nit ku posé soo posé jikko boobu lim lay indil mooy da ngay bëri da ngay bëri ñu la bëgg da ngay bëri ñu la sopp yonent bi alayhi salaam dafa bokkoon ci ay jikkoom mooy dafa posé posé gi li koy wane mooy waa ji jaar ci jàkka yonent bi rek jaar ci jàkka ji dox ba yàgg xalaata saw rek taxaw di sopp saxaaba yi tëb ba ko song xoolal yonent bi ni mu amee rif ak dal yonent bi na teg saxaaba yi ba ko dóor mooy leen bàyyi leen ñu ne ko tax ñu koy bàyyi bàyyi leen ko mu àggale mu àggale ay sabab waa ji saw ba pare mu ne woo leen ko mu ñëw xoolal dal googu ay woo ko mu ñëw mu ne ko yow xanaa xamoo ne fii jàkka la mu ne ko déedéet xaw ma ko woon mu ne ko jàkka kenn du ci saw xoolal xoolal xoolal ni yonent bi alayhi salaam géré mbir mi imagineel ñun imagineel tey ñun suñ jàkka yi benn xale rek wala koo xam ne wérul rek wala ku fa jaaroon rek commencé taxaw di saw bu la fa gaa yi fekkee hôpital nga jëm bay bu ñu la fa fekkee hôpital nga jëm waxuma la jàkk mais am na koo xam ne boo taxawoon bopp koñam ci bi ci koñu këram rek koñu këram ah taxaw fa di tuur ndox boo muy tuur boo paree dinañ la dàmp soo paree dinañ la diwal karité du am dalu xam kii wér na wala wéru kii normal na wala normalu waa ji lan moo ko dal mais dal googu dafa am solo nit ki lépp lu mu def nga ànd ceeg moom dal des fois nga gis nit koo xam ni da nga koo xamoon am ay comportement yu amoon demee ci yow mu jékki-jékki rek changé mën na am daa am lu mu la déggal mën na am daa am lu ñu ko wax mën na am dafa am information bu mu am ci yow ne da da da nga am position ci moom moom mu am position teel nga dal enquêtal nga dalal nga laaj ko ndànk ak ndànk dal googu dafa am solo te yonent bi alayhi salaatu salaam ci position yu bëri dafa jàngal saxaaba yi ñu daal sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya xudaybiya wax naa leen léegi benn dëkk la bu nekk diggante Màkka ak Médine boo jógee Médine di dem Màkka nii la lay féete droite ah xudaybiya foofu la yonent bi defee woon pacte digganteem ak yéeféeru Màkka yi mais pacte boobu dafa am ñu tàng ñu ci àndutoon Omar ibnul Xataab àndu ci woon Charhabil ibnu Xasana àndu ci woon ñu bëree bëri ci saxaaba yi ñoo xam ne ñoom ay ay guerrier lañ ay ay ay chef de guerre lañ ay xeexkat lañ ñoom li ñu bëggoon mooy xeex seen yaram loolu la laajoon alayhi salaatu salaam ànd ak dal ñoom ñu jàpp ne yonent bi vraiment fii dafay nooy dafay dafay dafay dafay sedd alors que place du place sedd du tax mooy boobu saxaaba yi gàddaay nañ dem Médine ñuy jóge délégation yu jóge ci bitti réewu arabe yi ñuy jóge Yémen ñuy jóge Irak ñuy jóge Syrie ñëw di tuub ci lislaam ñu ngi bëri saxaaba yi seen nombre bëri na léegi ñoom dañoo bëgg kut kut wan waa Màkka affaire bi changé na léegi rapport de force bi changé na léegi am nañu ay nit mën nañ xeex mbooloo maa ngi fi te ñun mën nañ xeex mbooloo rek ngeen ñëppoon léegi am nañ mbooloo ñoom boobu dañoo bëggoon woon waa Màkka il faut affaire bi na na na na tàng yaram moo tax dafa da ngay gis problème am ngay arrangé problème am koo xam ne moom day ñëw yaramam day tàng xeex rek lay bëgg parce que moment boobu day jàpp ne jekku na wala pare na alors que affaire yi loolu faju ko alayhi salaatu salaam wala leen ne meilleure solution bi année bii du xeex mais mooy ñu def pacte bi. te pacte bi alayhi salaatu salaam am na ci lu mu bëggoon teg na ay point yoo xam ne point yi ci boo xoolee ci kaw da ngay jàpp ne waa Màkka la arrangé alors que moom la gën a arrangé parce que sulx boobu Hudaybiya boobu après moo indi Fathu Màkka ah moo indi ji moo dem ba indi ji Fathu Màkka loolu moo tax léeg-léeg lu bëree bëri dal moo ko gën a mën a réglé ka tàngoor ak coow ak compliqué méttital jafeel mbir yi du ko faj dal moo koy faj. loolu mat a bàyyi xel xadis boobu mi ngi saxi muslim al xadis al ashrun xadis numéro vingt bi daanaka mook xadis bi benn la muy xadisu jarir jarir ibn abdillahi al bajali ci saxaaba yi mujjee tuub ci la bokk wala bokk ñu yéex a tuub dañu wax sax ñu mujjee tuub mais ñu yéex a tuub parce que jarir mi ngi tuub ci neuvième année ci gàddaay gi ci weeru koor neuvième année yonent bi gàddaay dem Médine ba def fa neuf ans neuf ans yonent bi ñaar at la def Médine onze ans ah dix ans onzième année bi ci la génn àdduna 13 ans la def màkk mu def 10 ans Médine loolu di 23 ans 9e année kon bu ci tuubee li muy tekki mooy yéex naa tuub Jarir ibn Abdullah al-Bajali ci année boobu la tuub 9e année ci hégire gi ci la ñëw Médine tuub ci moment weeru koor muy Ramadan 9e année bi loolu mboolem ñi ko tarjamaal ci kutubu siyar kutubu tabaqaat kutubu rijaal kutub maarifatu saxaaba ñoom ñëpp loolu lañ tudd mi ngi faatu l'an 54 aussi l'an 54. ci li nga xam ne mooy mooy égir bi jarir moomu mu ne anin nabi jëla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne bokkul ci saxaaba yi bëri xadis lool lu tax mooy dafa yéex a tuub ci ñu mujjee tuub la bokk ci ñi mujjee tub la bokk moo tax ay xadis ak bëriwul à peu près li ko borom xam-xam yi recensé ay cent et quelques xadis la deux cent yi manqué na tuuti jërin moom nee na man yoxram yonent bi alayhi salaam nee na man yoxrami rifqa ku yàlla xañ dal dal posé ku ko yàlla xañ yoxramil xayra yàlla xañ na la lu lu baax xañ na la yiw bu bëri parce que dal lim la mën a régleel njëriñ yim la amal intérêt yim la mën a apporteel tàng ak compliqué mënu la koo indil tàng ak compliqué mënu la koo indil lim la mën a indil ci solution lim la mën a indil ci nga am ay nit nga am nit ñi nekk ak nit ñi du la tàqaleeg say nit du la tàqaleeg say xarit du la tàqaleeg sa famille du la tàqaleeg say am di jàmm du la tàqaleeg say àndandoo loolu compliqué defu ko soo compliqué wala nga métti dalay xañ ay nit xañ la ay relation des fois xañ la liggéey des fois xañ la poste des fois xañ la jaamu yàlla gu normal yàq sa digganteeg ay nit yàq sa digganteeg say mbokk yu la jege da koy def lu bëree bëri des fois da ngay dem ci benn jàkka jàkka ji benn waay moo fi nekk boo xam ne mooy seen fardo mooy fardo bi nga xam ne moo leen sonal waa jàkka ñëpp am nañ jàmm mais am na kenn ku fi nekk koo xam ne moo gën a métti ci jàkka ci moo gën a métti ci jàkka ci moom damay kenn jàmm su ñëwee ñëpp xam ne ñëw na compliqué tàngoor jafe-jafe la fi indi te léeg-léeg jafe-jafe yooyu yëpp du ko jëlee ju ju jubal ci côté xam-xam parce que xam-xam bi jàkka ji laaj moom du borom xam-xam mënul jiite mënul jàngale mënul bayaan mënul waaraate mënul indi benn apport scientifique ci côté xam-xam ci jàkka ji mais apport apport terreur terreur fitnaal nit ñi ah gëddaate yuuxu da nga koy gis ba ci suñ ba suñ jàkka yi waxuma laa kër yeeg quartier yeeg bureau yeeg service yi nit ku compliqué dafa doy waar moo tax fu mu nekk coono lay nekk ci nit ñi mais nit ku dal ah boo amee njiit bu dal borom kër bu dal imam bu dal chef de quartier bu dal maire bu dal président bu dal ministre bu dal député bu dal commissaire bu dal procureur bu dal avocat bu dal magistrat bu dal médecin bu dal waaw day dëkk bi day neex wala déet mais imaginer ñu am imam bu compliqué borom kër bu compliqué yaay ji compliqué tante ji compliqué ndijaay bu compliqué maam bu compliqué chef de quartier bu compliqué maire bu compliqué ministre bu compliqué président bu compliqué chauffeur oto yu compliqué waaw dëkk bi fu mu jëm dëkk bu compliqué ngay am na wala déet complication sur complication lay day métti. des fois nga dem jàkka joo xam ne imam bi day compliqué bilaal bi compliqué autorité jàkka ji compliqué soo ko jullee yow da ngay am problème boo paree ba mu dul jàkka ji doo ko jaaral am benn mbokk nee na jàkka joo xam ne dafaa jaar heure julli jot gaa yi taxaw rek mu gis jàkka ji sàppe bi ci kanam fi sës ci imam daa di am daa di féex kenn néew mu ñëw rek taxaw ci kanam benn paa bu xaw a tardé nekkoon ci ginnaaw ñëw sol grand mbubb yooyu jool ci kaw fekk ko ko rek seen daal di koy arrière yóbbu ko bu fële ne xale day taxaw ci ginnaaw yow nga ñëw fekk jàkk xamoonu jàkk jàkk woo nga ñëw taxaw ci ginnaaw imam yaay kan gis nga moo tax yooyu li ma ta bàyyi xel am nañ suñu suñu jàkk fële ci parcelle cité sobre bi lu góor koo xam ne même chose sonal sonal sonal waa koñ sonal waa jàkka bu jaaree ci jàkka ji mën naa toog ay année di fi jaar te këram zéro mètre mais chaque fois dina indi complication jàkka ji ñi fa nekk ñëpp dañoo dal mais moom beneen affaire julli tàkkusaan ba pare rek mu jóg imaam yow yéen lu tax ngeen di imposer nit ñi rek seen idéologie quoi seen idéologie yi rek ngeen di imposer nit ñi lu tax su ngeen jullee du ngeen ñaan lu tax su ngeen jullee du ngeen ñaan ma ne waa jàkka ji est-ce que fii daa am ku fi tere ñaan ci jàkka ji jàkka ji dafa am ku fi tere ñaan ah ñu ne ah déedéet ma ne ko waa yow léegi lu tax yow nga bëgg a terroriser nit ñi bëgg a imposer nit ñi yow sa vision yow yow lu tax nga bëgg ñoo imposer sa vision bëgg ñu ñuy ñaan mu ne teg ma ne léegi yow yaa bëgg a imposer nit ñi fii kenn imposer fi mais yow yaa bëgg a imposer yow yaa bëgg a imposer nit ñi ku julli ñaan yow kan moo la teree ñaan bi nga jullee ba sëlmal bañ sëlmal ku la teree yëkkër sa loxo nga ñaan yow ñaanal sa soxla yow da nga xam sama soxla ba xamoo sama soxla man maa xam sama soxla man mën naa ñaanal sama bopp yow sa soxla yaa ko xam ñaanal si bopp man mënu maa ñaanal mu ne teg nga xam ne ñooñu boo diggeek ñoom ci aay ak xadiis ak xamuñu loolu dawaa jàkka ji bu fekkee dafa am benn benn milliardaire bu gaare fii benn milliardaire bu gaare si buntu jàkka ji léegi milliardaire bi moom ay maletu xaalis la yor ku ñëw mu jox la léegi lan moo gën a logique kenn ku nekk dem ñaan ko mu jox la nga yóbbu wala ñun ñu yónni kenn ne ko demal ñaanal ñu kooku dem mu jox ko cinquante millions te man problème mu cent millions la am ex kenn ku nekk du dem kii ne ko man bu ma amoon 100 millions dina baax de kii ne ko man 20 rek kii ne ko man 30 kii ne ko man 500 millions laa bëgg kii ne ko man 800 est-ce que loolu gënut kenn ku nekk dem ñaanal sa bopp sa soxla mu jox la du loolu moo gën ñu dele ko benn waaye ne ko demal ñaanal te moom xamul suñ soxla ñun a jàkk dina ah waaw loolu de imaam jub na de loolu jub na problème bi daal de résoudre ñu toog ay ñu fëx jàkka ñu toog ay ay ay mois lu jege année sax kenn gisu loolu moo tax nit ku compliqué des fois doo compliqué nag mais des fois nga xaw a wàcc ba tolloog niveau won ko compliqué ñëpp ko mën da ngaa compliqué rek ñun dañoo compliqué mais suñu neexee compliqué des fois nga mën ko kuy compliqué des fois yow bul compliqué mais won ne ko su ma neexee mën naa compliqué comme yow parce que li ngay jaay mën naa ko mais dafa amul njëriñ quoi dafa amul njëriñ mais mën naa compliqué comme yow parce que compliqué ku mu neex nga compliqué parce que compliqué dof-dof la la quoi su la neexee rek ko dof dof lu compliqué ñëpp a ko mën ñëpp a ko mën mais nit da ngay nite nit da ngay nite te liy tax nga nite nag wax dëgg yàlla jikko woo jikko diine yi daf cee am solo kon loolu mooy xadiisu ja jarir liñ ciy jàngee mooy ar rifq kulluhu xayr waaye adamu rifq kulluhu shar ar rifq kulluhu xayr dal ak posé lépp yiw la ñàkk a dal ñàkk a posé wallahi jafe-jafe rek la lay indi ci sa dund da lay indil jafe-jafe sa digganteeg sa borom jafe-jafe sa digganteeg sa bopp jafe-jafe sa digganteeg doomu aadama yi mais soo dalee rifq soo ko amee sa digganteeg yàlla sa rapport ak sa borom day baax sa rapport ak digganteeg doomu aadama yi day baax mais sa rapport maa nafsika dafay baax ak sa digganteeg bopp dafay baax loolu lu ma ta bàyyi xel bokk na ci alxadisu alxaadi wal ishrun xadis bañ ci iñee man jàppoon naa ne duñ jeexal may xadis yi mais alhamdulilah ah yàlla mën na def kon benn fan moo des wala ñaar yàlla mën na def xëy na ñu jeexal ñu am 30 xadis xëy na alxadisu alxaadi wal ishrun muy xadisu vingt et unième bi an ibni abbas waxoon nañ kan mooy ibni abbas ak ñaan bi ko yonent bi ñaanoon xam-xamam waxoon nañ omar ibn alxataab ni mu ko doon taxawaay bi mu amoon jëmale ci abdullah ibni abbas waxoon nañ débat bu am solo bi mu defoon digganteem xawaari ji ba génnee ci lu tolloog 70 ci xawaari ji ci ay aay yu ñu doon tegtaloo mu xamal leen ni ni ngeen koy firee ju noonu ba delloo si leen ci lislaam ci lañ waxoon ni débat ci lislaam dafa am aljidaal bi nga xam ne mazmum la boo xam ne dañ ko tere ak boo xam ne mahmud la boo xam ne jidaal bu ñu bëgg la mooy li yàlla wax ne wala tumaari fihim illa miraan zahira wa jaadilhum billati hiya ahsan wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan ahsan googu foog mu ne fi mooy débat bi day rafet duñ dëkk débat bu ñuy personnalisé débat thématique lay doon ci wàllu thème la ñuy wax ci xam-xam ci benn mawdo mais du nekk loo xam ne dañ koy personnalisé nga may saaga ma lay saaga nga may xas ma lay xas ngay xas sama kuréel ak sama mbooloo may xas sa kuréel ak sa mbooloo ngay xas sama askan ak sama xeet may xas sa askan ak sa xeet xamoo dara yaa ma gën a ni laar jàngoo jàng naa jàngoo fii nga jaar jaaroo fii loolu taxul ñuy wax mais li ñuy wax mooy xam-xam lay doon da ngay argumenté ci xam-xam argument scientifique nga teg li nga teg ma xool ndax mën naa ci tontu wala mënuma ci tontu su fekkee man it am naa ay argument scientifique yi ma mën a teg ci taabal ju teg doomu aadama yiy déglu ñooy apprécier nit ñi dañuy apprécier dañuy xam ku wax xam-xam ak ku waxul xam-xam mais débat boo xam ne yow sa bopp ngay wane wane ne man jàng naa am naa xam-xam jaar naa fii jàng naa logique jàng naa philosophie jàng naa rhétorique jàng naa tel ak tel loolu taxul ñuy wax débat boo xam ne aussi da ngay ñëw pour di saaga ak di xas aw kuréel mais li ngay wax lépp tegoo ko ci xam-xam seen yére yu gàtt yi seen sikkim yi seen socc yi nangam nangam yooyu loolu du débat dañoo weddi mag ñi gëmuñu mag ñi te magu mag ñi lañ lañ topp mu yonent bi nga naan dañoo weddi mag ñi yan mag su ko defee loolu dafay nekk problème boo xam ni nekkatul débat scientifique mais attaque ciblée la xas la. acharnement la ainsi de suite mais nekkatul waxu xam-xam débat bi dafay nekk débat boo xam ne débat xam-xam la ñi koy seetaan dinañ sa war a seetaan ñi koy déglu dinañ sa war a déglu ko lu tax mooy dafa xam-xam niveau bi yëkkatiku na li ñuy wax am na argument leer na nit ki mën naa jëriñu mën naa jëriñu loolu moo tax ñuy wax ibnu abbas boobu la defoon ak xawaari ji omar ibnu abdul aziz boobu aussi la defoon ak li nga xam ni moom mooy xawaari ji loolu nag lu tumoon ankelu suñu jamono ji débat yi ngay dégg fii fi bëri 99 pour cent wane ay biceps la wane doole la yëkkatiku la tuutal nit la xasaate la ah ainsi de suite soo paree kontaan na waa ji massacré naa ko alors que débat du loolu du ay massacrante yàlla de maanaam xam-xam loolu tax koo jóg mu ni ibnu abbas nee na qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lil ashaj wax na ko saxaab bi ñuy wax ashaj ashaj boobu ban la mooy ashaj abdul qays mooy ashaj abdul qays ci saxaaba yonent bi alayhi salatu salaam la bokk li mu nettali ci ay xadis bëriwul yeneen bi da koo da koo xool seetlu ci moom ay jikko yu am solo mu ne ko yow asaj inna fiika xaslatayni am nga ñaari comportement ñaari bon comportement sax yuhibbuhum allahu yàlla da koo bëgg ci yow ñaari comportement yi nga am yàlla bëgg la alxilmu wal anaat alxilmu mooy rifq bi ñu waxoon mooy dal dal mais alxilmu mooy lewet lewet ak nooy wal anaatu mooy teey nit koo xam ne ëppalul dafa teey al anaatu mooy teey teey nag ñun sénégalais yi ni ñu koy firee di noonu de sénégal dafa am baat yoo xam ne ni ñu koy firee sénégalais rek moo koy firee noonu comme baatu maandu sénégalais bu leen diw dafa maandu teey sénégal li muy tuddee maandu mooy moom yu bon yi muy def nga noppi ci loolu mooy maandu quoi buy dem soirée bu ci wax yow da ngaa maandu bu def ay bidaa bu ci wax yow da ngaa maandu buy wax ay shirk bokkaale yow boo ci noppee da ngaa maandu soo ci waxee maandu woo kon li muy tekki mooy alxuraan mi wax ci bokkaale alxuraan maanduwul alxuraan mi wax ci bidaa maanduwul nit kiy tux cigarette am nga ne tux cigarette baaxul yow maandu woo lu ci sa yoon maanduwul kii naan sàngara nga wax nga dénoncé naan sàngara yow maandu woo selon les sénégalais maandu woo maandu woo parce que da ngaa tudd yëfu jàmbur non loolu du maandu te de yàlla bàyyiwul baat yi ñu koy définiral suñ bopp yàlla moo ko définiral boppam li yàlla baaxal mooy li baax li yàlla bonal mooy li bon donte ñëpp dañ na baax parce que mesure nattukaay yi misaan bi misaan bi du maa qaalahu naas mooy du nit ñi wax waaye maa waafaqa al xaqa wa dalil al misaan nekkul maa qaalahu naasu wala maa faalahu naasu du lu nit ñi wax wala ñu def ko waaye maa waafaqa al xaqa wa dalil mooy dëppoog dëgg ak dëppoog texte ban dëgg mooy dëgg yàlla ak yonent bi ban texte mooy texte yàlla ak yonent bi loolu mooy loolu mooy dëgg kon ñaari jikko yi moom la asaj ci amoon yonent bi ne ko yàlla da koo bëgg ci yow keneen ku am ñaari jikko yi li asaj ji amoon moom ngay am li asaj ji amoon moom ngay am kon li muy tekki mooy bokk ci jikko yi jullit bi war a jikko woo mooy alxilmu wal anaatu mooy nooy mooy nooy nooy mooy lan mooy nit ñi ñeme la ñeme sa kanam ñeme wax ak yow ñeme jëflanteeg yow gis ci yow ouverture ouverture ubbeeku ah gis jiw ouverture nga nekk nit koo xam ne ku ubbeeku nga loolu mooy nooy doo saaga doo xas métti woo ci kaw nit ñi al anaatu mooy da ngaa da ngaa teey ku la indiloon information léegi ne la sa waay ah sa waay li mu la wax weñ bu ci dal dee. maintenant sa waay am na fit wax ma loolu xaaral ma ñëw foo jëm nga ne non xaaral ma dem rek la ko te ñëw wax te ngaa teey al anaatu jamono di nekk moo gën a yell. moo gën a yell ci jamonoy tey parce que lii ñëw ci information bés bu nekk boo ko déglu boo boo koy déglu te teeyoo di nga xuloo koo warta xuloo di nga bàyyi koo warta bàyyi di nga jéppi koo warta jéppi di nga mere koo warta mere di nga dog koo warta dog di nga ñaaw njot ci loo warta ñaaw njot ah ñàkk a tey moo la koy indil ñàkk a tey moo la koy indil moo tax doomu aadama bi jamono ji ñu nekk jamonoy tey la tey ci lépp tey ci wax tey ci jëf tey ci information yi lay dikkal tey ci li ngay seetaan ak li ngay déglu dañ la fiy montel benn vidéo léegi ne la diw moo wax nangam fekk lu ñuy tuddee deep fake la deep fake deep fake yaakaar naa suñu technicien yëpp mën nañu ko expliquer montage vidéo boo xam ne dañ lay wax loolu langue boo xam ne langue bi déggu ko sax yow man dégguma séeréer ñu fexe ba mu wax séeréer bokk séeréer yi foog ma sonal leen samay kàllañ ah déggoo chinois ñu fexe ba ngay làkk ay cong cong cong te yow déggoo chinois ñu ne kii moo waxtu chinois saaga chinois yi loolu nar a yëngal tey ñàkk a teey ñàkk a teey ku ko ku ci deful ndànk wallahi mën naa indi xeex diggante ay dëkk mën naa indi problème diplomatique diggante ay dëkk mën na ko indi mën na indi xeex diggante ay kuréel kuréel gis ngeen ay année yi fi jàll année yi fi jàll surtout 2018 gis ngeen année 2018 fii liñ fi sibir ci ay montage ay montage montage yoo xam ne dañuy monter waxu nit wala ñu monter audio wu nit ak photo wu jaambur boo xam ne waxut ak kooka yow da ngay wax ci ne ku woote woo yonent ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam kàccikat la parce que alxuraan ak sunna ñoo ko wax ak borom xam-xam yi islaam yi dëppoo ci benn waaye jël wax jooju boole ko benn photo te léeg-léeg ñu koy def mën nañoo bañ a nekk ahlu sunna de mais moom moom daa am lu mu ci bëgg. ñu ne diw sëriñ diw lay waxal diw lay waxal diw carrément léegi ñooñu buñ teeyul buñ teeyut mu indi problème bu rëy rëy rëy dox naa fii ci biir Yoff dugg ci benn magasin Yoff nar faa subir problème boo xam ne yàlla rek a xam yàlla rek a xam saaga menace lu ne lu ne lu ne lu tax après la comprendre lan moo tax ñu jël benn benn audio boole ko benn seen benn moom lay wax moo tax jamono yi nekk soo teeyut mën nga am mën nga am problème yu rëy dem nañ nit ñi dem nañ ba àgg ci mën nañ imiter baatu nit imiter baat bi wala ñu monter ci baatu jaam suñu xasee ba am son bu benn benn audio rek baat bi mën nañ ko jël monter ko moo wax ba mel ni moo wax loolu police bu ci teewul mën na ci jàpp nit tribunal bu ci teewul mën na ci mën na ci mettre nit mandat de dépôt ah ainsi de suite ñu taxe la wala ñu askanale la loo xam ne yow da nga caa seet wecc moo tax lu mat a bàyyi xel jamono ji nekk jamonoy tey la nit ki na tey bu baax a baax a baax moo tax ñaari jikko yi soo ko amee lu tax mooy doo def dégâts soo nooyee doo gaaw a def loo warta def soo teeyee doo gaaw a def loo warta def doo gaaw a wax loo warta wax mais soo teeyul pour nga indil la dara te du dëgg wala nga yaakaar dara ne noonu la nga attaqué nit attaqué communauté yàq der ah les fois ñàkk tey tax nga sosal nit ñàkk tey tax nga xas nit wala nga saago ko wala nga meral ko léeg-léeg ñàkk tey day tax waa ji sukkandiku ci benn affaire bind ci livre livre dañu gis boo xam ne ñàkk teyam dañ naan dara xew na rek moom moom xamagul de mu dem bind ci livre gaaw njëkkante bind ci livre kii ñëw bind ci benn article journal am def gros titre nag à la une def ko à la une te fekk dara du ci dëgg ñàkk tey moo ko ko yóbbee ñàkk tey moo ko ko yóbbee moo tax alxilm wal anaatu dafa nekk ñaari comportement yoo xam ne jullit bu nekk dafa war a góorgóorlu pour daal di koy daal di koy jib jikkoo moo tax mun alxilmu al aqlu mooy nite mooy mooy nite wal anaatu at tasabbutu wa tarkul ajala al anaatu mooy at tasabbut mooy di vérifier wa tarkul ajala bàyyi yàkkamti yàkkamti baaxut jullit du yàkkamti jullit du yàkkamti yàkkamti baaxul da ngay vérifier da ngay leerlu da ngay wóorlu ba xam mbir mi noonu la demee wala demeewul noonu alxadisu saani achar xadisu asaani wal ichron muy vingt deuxième xadis arrahmatu mooy yërmande la miséricorde mooy yërmande yërmande du doomu aadama yi pour seen dund mën a normal il faut yërëmante am suñu boroom dafa yërëm jaami yàlla subhanahu wa taala ci boppam daf ñoo yërëm bokk ci ay turam arrahman bokk ci ay turam arrahim arrahim yàlla sant ñu ñu yërëmante yonent bi alayhi salatu salaam yer saxaaba yi ci yërëm leen ak ñu yërëmante ak di yërëm seeni mbokk doomu aadama seeni mbokk julit seeni mbokk nit lislaam nekk diine joo xam ne li ci nekk ci yërmande doo ko fekk ci benn diine nit ñi vision bi ñuy jox lislaam muy diine barbarie diine diine sauvagerie diine ju sauvage diine rey dagg loxo dagg tànk dagg bopp ah alors que l'islam melul noonu diine ju bëri yërmande la yërmande yi même jaamu yàlla yi suñu borom jaamu yàlla yi ñu sant yërmande da cee nekk yàlla sant la juróomi julli ci bés bi juróomi julli ñaata julli la woon avant muy nekk juróom nekkutoon cinquante yàlla su ko neexoon mu maintenir cinquante yi ku ci mën dara cinquante yi soo ko deful mu sanctionnel suñu borom bind fukki weer ak ñaar mu ne benn weer bi la ñuy woor yàlla su ko neexoon du wax moitié bi la ñuy woor 6 mois dañuy woor 6 mois bañ a woor 6 mois kan moo ci mën dara am na ko ci mën dara kenn mënu ci dara nga am azaka nga am azaka suñu borom ne la génnee ci 2,5 pour cent c'est-à-dire soo amee 1 million ñaata ngay génne 25000 soo amee 500000 7250 waaw loolu neexut. 500000 ñu ne la génne 7250 loolu du yërmande suñu borom bu ko neexoon mu ne la soo amee 1 million 500000 soo amee 500000 250 moitié bi ngay génne ku ci mën dara loolu du yërmande. aj Màkka mu ne liman istataa ilayhi sabila ki ko mën ki nga xam ne wér gi yaramam may na ko ko alalam may na ko ñaari daje na am na wér gi yaram ak alal ju ko may mu aji na aji ku ko amul wàcc na la azaka mu ne même ñi ko am la war ñoo ciy génne 2,5 pour cent. ku mënul wàcc na la julli mu ne salli qaa'iman fa in lam tastati fa qaa'idan fa in lam tastati fa ala jamb julli dafa bokk ci arkaanu salaa moo alqiyaam mooy taxaw ci rukn yi la bokk mais soo mënta taxaw am nga ngànt looy def nga toog soo mënta toog ah nga tëdd tey heure julli si jotee waxtu julli bi inna salaata kaanat ala mu'minina kitaaban mawquuta mais heure julli bi da nga am ngànt charia mu ne looy def da ngay fay bu julli bi rombee nga fay boo nekk ci voyage ci tukki mu ne la lan ngay def may ne la nga wàññi julli ñeenti rakka bu nekk mën la nga def ko ñaar ah yemu fa mu ne soo nekkee ci biir voyage teggil na la julli naafila ñaar yi rek la la teggilul muy ñaar rakkay fajar ak julli witr yonent bi da nga daan julli safaran wa hadara mais yeneen naafila yi teggil nañ la ko pour coono bi ngay def ci voyage bi loolu du yërmande loolu borom bi dox yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla lu yomb la bëgg ci yéen bëggul lu métti ci yéen wa maa jaala aleykum fi diini min xaraj yàlla deful ci yéen ci diine amul diine amul benn gêne benn métit amu ci ku ko métital yaa ko métital mais lu métti amu ci kon diine ji yëpp daf ko teg ad diinu mabniyun ala al yusr wa diinu mabniyun ala al rahma moo tax alayhi salaam wax ne inna diina yusrun wala ñuy shadda diina ahadun illa galab diine dafa yomb kuy jéem a teengal di ko métital diine ji dalay gañe moo tax yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee ci jàkkaam ci Madina fekk soxna suñuy wax Zeynab takk dafa ab buum buum takk benn buum yonent bi alayhi salaam ñëw yeewu rek gis buum gi mu ne waaw buum bi lan la ñu ne ko Zeynab moo ko fi takk alayhi salaam ne lu tax ma takk ko fi ñu ne ko bu jullee ba ma ba mënatul taxaw ba taxawaay bi métti day mujj téye ci buum gi di julli alayhi salaatu salaam ne aleykum min al amali ma tutiqun inna allaha laa yamallu hatta tamallu dee leen def ci jëf yi dee leen def lu ngeen attan julli julli ba mënatoo taxaw ngay téye ci ay buum melal danañ def lu ngeen attan yàlla moom du tàyyi du sonn fi ak sonn ne kon yow looy def defal li nga mën xoolal yërmaane googu xoolal yërmaane googu alayhi salaam fekk ne benn waay ñëw toog ci diggante naaj ak ker mu ne ko bu toog ci diggante naaj ak ker seytaane mooy toog ci diggante naaj ak ker mu ne ko fii laa bëgg a toog mu ne ko jugal nga toog ci ker gi wala nga dem ci naaj bi tànnal benn xoolal diina jooju nga xam ne diina yërmaane la lépp yi lislaam ci yërmaande la ko teg booy saraxe mu ne saraxee li nga attan li nga mën loo mënul bu ko def xoolal li nga attan li nga mën nga daal di koy def ah tabaski bu ñëwee mu ne la boo amee loo tabaski nga tabaski soo amul bàyyi mais sénégalais moom même bu amul day lepp sunna mu akkadal li nekk waajib sax dalay wax ne soo mënee nga def soo mënul nga def ko ni nga ko mënee fattaqullaha mastataatum ragalal yàlla ni nga ko attane léegi tabaski mën na la soo mënee defal soo mënul bàyyi mais da nga gis koo xam ni mën far la force lay def moom il faut mu mën far la force te ci diine mën far la force amu ci ah farida mu akkada sunna mu akkada la mais dañ koy mujj def farata mu akkada kon yooyu bokk na ci yi nga xam ni day wane yërmande ci ci lislaam alayhi salaatu wasalaam wax ni suñu boroom am na li nga xam ne mooy téeméeri yërmande benn yërmande bi la wàccee ci àdduna waa àdduna yëpp moom lañ bokk ak animaux yeeg ñëpp moom lañ bokk mun a ci yërmande boobu muus ci lay jëlee doomam bu mu jur màtt ko di ko toxal di ko yóbbu ci yërmande boobu yàlla wàccee ci ko kaay mu ne gis ngeen muus bu jël doomam di ko di ko toxal màtt ko di ko yóbbu est-ce que dana ko gaañ ñu ne ko déedéet mu ne yàlla mu ëpp yërmande muus mi ci jàmm bi nit rey na nit rey na cent bakkan yàlla dugal ko àjjana cent bakkan te benn bakkan yonent bi alayhi nee na nga rey kenn nit rey benn bakkan tuur deretam ci lu tegewul ci dëgg moo nga dem buddi kaaba gi toj kaaba gi moo gën a oyof nga dem toj kaaba gi moo gën a oyof nga rey bakkan boo war sa rey benn waaye rey cent bakkan yàlla dugal ko àjjana yërëm ko dugal ko àjjana yërmaane yàlla ku ko mën a mesurer mais nag yërmaane yàlla yàlla dafa bëri yërmaane santuñu ñu yërëmante diine ji yàlla def ci yërmaande jaamu yàlla yi mu def ci yërmaande santaane yi mu def ci yërmaande luwaa mi luwaa yi muy tashriaat yi yaa def ci yërmande lu waay yàlla teg sa def ci def yërmande dara métti wu ci lépp yërmande la loolu moo tax diina ji diinu rahma la diina yërmande la an abi hurayrata radiallahu anhu mu ne jëleen ci abu hurayra qaal waxoon nañ kan mooy abu hurayra abdurahman ibnu saxr ad dawsi mu ne qabbala rasulullah saa sallam alxasan ibnu ali yonente bi alayhi salatu salaam dafa fóonoon alxasan ibnu ali alxasan mooy magu xusayn sénégalais li ñu yaakaar mooy xasan ak xusayn ay seex lañ nekkuñu ay seex Xasan mooy mag Xasan moo magee Xuseyn six mois la ko magee six mois loolu li muy tekki aussi li muy tekki mooy jigéen ëmbam mën naa diire six mois ci lislaam six mois mu am doom te du prématuré doom ji day mat doom ji day mat six mois Xasan six mois la magee Xuseyn ñu bëri dañoo yaakaar ay seex lañ mais du seex te mag ak rakk lañ Xasan moo mag Xuseyni moo ci teg Xuseyni nag moo gën a siiw ndax Xuseyni moom lañu rey ci Karbala ci bësu tamxarit ah moom lañu rey ci Karbala ci bësu tamxarit Shia yi di ko jooy ne deretam dafa tuuru ci bës bi ñoom bësu tamxarit bu ñëwee dañuy barkeelu ci bës bi seen deret day tuuru ñoom it nga gis gaa yi télé yi boo koy seetaan ay Liban Irak Pakistan ah dagg seen bopp dóor ay jaas dagg seen bopp ñoom it pour seen deret tuuru ci bës bi comme ni deret Xuseyni tuuroo ñu am it di barkeelu ci de- ci ci loolu di dëjël Xuseyni jël bësu Xuseyni boobu mu faatu def ko dëj te bësu baayu Ali baayu Xuseyni muy Ali du dëj te Ali moo gën Xuseyni baayam moo ko gën te Xuseyni Ali dañ koo rey xawaari ji ñoo ko jàmpaat ca Kuufa ca Irak te bës bi ñu rey Ali nekkul dëj mais nañ bàyyi Ali Ali yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko gën est-ce que yonent bi bës bi mu faatu dëj la bu fekkoon nit ku baax ci lislaam boo faatoo rek bés bésu dëj la bés bu ñëwee dañuy jooy ñaata bés la ñuy jooy ñaata bés la ñuy jooy ñaata bés la ñuy yenu suñu loxo ah ñaata bés la ñuy la ñuy dëjal kon fooroom bu dëj fooroom bu dëj dëj dëj sur dëj bu doon ku nit ku baax ku dee dëj la kon lis jouru lislaam yépp 365 yi wala 366 jours yi ba moytul dinañ ci yokk ñun parce que du dëj du ci xej yow boo jëlee saxaaba yi 100000 saxaaba 100000 saxaaba 100000. léegi 100000 saxaaba dañ dëjël benn saxaaba bu nekk ñaata ñaata dëj la ñuy am amuñu 100000 dëj 100000 dëj ëppul 365 jours léegi ñu pare ci saxaaba yi ñëw ci taabiyoon yi bu ñu paree ci taabiyoon yi ñëw ci atbaaw taabiin ba qurunu salaas al mufaddala jeex ñu dëjël ñëpp ku nekk ñu wutal la bés bu ñu lay dëjël bés bi nga faatu suñ paree wàcc wàcc ba agsi ci suñ jamono day day day waata kon maanaam ñun waa lislaam duñu liggéey duñu xëy duñu gont dañuy toog rek di dëj di dëj di lekk di naan di dëj day day waar te lislaam du diiney dëj du diiney dëj fekkoon ku dee rek di dëjal la kon day day waar lool donte nag chia sénégalais yoom ba léegi gisaguma ñu tuur deret ñoom ñoom daa mel ni tuur deret moom bokkagul ci affaire bi jël jaasi dagg fii moom daa mel ni naar yaa ko gën a ñeme loolu bokk na ci li nga xam ne moom jaaxal na ma ci ñoom ba léegi lu tax mu ni dafa fóon xabbal dafa fóon rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam alxasan ibnu ali xasan ibnu ali bu ñu koy fóon ci jataay ba wa indahu nekkoon na fa al aqra ibnu xaabis at tamimi saxaabi bu ñuy wax aqra ibnu xaabis at tamimi mi ngi fa woon jaalisan toog mi ngi fa woon toog gis yonent bi téye xuseyn daal di koy fóon fa qaala al aqra aqra ne ko inna li asharatan min al walad yonent bi man am naa fukki doom maa qabaltu minhum ahad musuma fóon kenn ci ñoom ak bëri ñaata xaabis lañ fi am xaabis mi li ko dal dal nañu bëri de am na ñoo xam ne mosuñoo foon seen doom waaw yow bokkul ci mais am na ñu ci bokk fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam xool ko xool ko xaw a bisaar suma xaala mu ne ko man laa yarxam ku dul yërëmaate laa yurxam duñ ko yërëm maanaam nit soo dul yërëm nit ñi yàlla du la yërëm ku dul yërëmaate duñ la yërëm léegi li muy tekki mooy foon boobu foonu yërëm la mooy xale xale dafa soxla affection parentale dafa soxla affection parentale wallahi bokk na ci études yi nga xam ne ay psychologue def nañ ko ak ay sociologue def ko mooy dañ gis ni xale yi nga xam ni ci wàllu cursus scolaire dañuy jàng am affection parentale ñuy ëpp résultat xale yi nga xam ne dañu am manque d'affection xale boo xam ne papam ak yaayam ñu ngi en couple amul séparation papam ak yaayam dañ koy toppatoo dañ koo bëgg ah xale boobu mooy ëpp stabilité intellectuelle psychologiquement mooy gën a stable beneen xale boo xam ni ay parents nekkuñu wala ay parents nekk nañ mais nekkuñu ak moom maamam la nekkal wala ay ndijaayam wala ay tantam affection parentale daf koy manqué daf koy manqué te xale. dafa soxla affection parentale comme ni mu soxlawee chaleur parent chaleur dafa soxla yaramu yaayam dafa soxla yaramu papaam moo tax xale boo xam ne yaayam da koy uuf yaayam da koy uuf papaam da koy uuf ah yaayam da koy fóon papaam da koy fóon fóon boo xam ni li ñu jublu mooy fóon bu ànd ak affection bu ànd ak yërmande loolu dafa jaaru diggante papa ak doom mais ñun africain africain malheureusement du suñu culture bu ñu waxantee dëgg culture tubaab yeeg naar ya ñoom culture la ci ñoom jàpp sa doom foon ko ñun fii boo ko doon foon foon yu bëri boo moytul sa papa ak sa yaay ak waa kër gi ñoo naan la yow da ngaa tubaabee nag wala yow da ngaa naare sax ba moytu lu tax mooy xamuñu ko du sunu culture du sunu du sunu culture ñoom culture la ci ñoom fóon loxo boroom xam-xam fóon jëw boroom xam-xam akolaat boroom xam-xam akolaat nit koo gëj a gis mais ñun yooyu dafa xaw a bizarre du sunu culture nit ku nekk ak sa culture africain moom yeneen culture la am mooy nga ñëw taal loxo bi mu dóor dóor bu foor téye xëcc ci loxo bi yëngal ba moytul mu xaw a wekki sa màgg bi ñun culture yooyu lañu am moo tax ñun des fois naar yi naar yi boo leen doon nuyu dañuy wax na yéen seen nuyu moom day des fois dañuy hésité parce que ñi ngay dóoree loxo bi ñoom tàmmuñu ko ñun da ngay ñëw taalal ma taalal nga dóor tàpp bu foor boo xam ne ku nekk fële da koy dégg day jàpp ne am kuñ mbéj mais ñoom ñëw nuyu la nuyu bu set mais xa- ci loxo dóor moom dañ koo xaw a ragal te ñun africain dañ koo tàmm ah dañ koo tàmm moo tax des fois dama am xaritu naar bu ngeen dajee gëj a gisee daje boo xàccee rek moom day day yor ndànk ne la nii parce que xamuñu ko loolu moo tax euh, sunu culture foofu la gën a jëm ko ci lii moo tax lii alayhi salaatu salaam lan la fi jàngale mooy nit ki su amee doom bëgg nañ lekk-lekk nga leen di nga leen di fóon fóon ci jë jë wala fóon ci li nga xam ne mooy lex wala fóon ci yaram lu tax mooy dafa am lu muy relation euh, bu muy def diggante papa ji wala waajur bi ak doom ji dafa am relation bu baax bu muy def ci moom beneen bi dafa bokk ci li nga xam ne xale xale da koy xàmmee xale bu ndaw da koy xàmmee waajuram xale dafa am ay signes yu koy téye ci papaam ay signes yu koy téye ci yaayam gis nga papaam ak yaayam bu nekk ci biir kër gi joxuñu ko affection bi war benn tantam wala benn nijaayam ñëw fi accordé ko affection bi moom lay gën a am yitte ko ci papaam ak yaayam parce que papaam ak yaayam taluñu ko papa ak yaay bu duggee kër gi da koy xool ni continuer mais ki ko jox affection bu duggee ci kër gi mu daw laxasu songu ko fu mu toog mu toog fa papa ji sax wala yaay ji ba mu commencé déranger wu mais kii moom yow la fekk problème bi yow da koy taq da koy takk lu tax mu koy takk mooy affection bi affection bi ko bi ko nit ki jox xale boo ko accordé importance da lay accordé importance mais bu fekkee duggoo ko boo duggee ci kër gi yaa ngi monté ay vidéo ah yaa ngi def ay yeneen xale bi taloo ko moom it du la tal waxuma kenn damay jox exemple rek moo tax xale bi da nga koy jox temps moom it mu jox la temps da nga koy da nga koy bàyyi xel bàyyi la xel euh, affection bi bi nga koy jox. dala koy fayaat gis nga xale wallahi dafa bokk ci liy yéeme la borom xam ne wax mooy xale loo koy ji moom la lay fay bu amee ki ne ci kër gi soxor ci xale bi bu ko xoolee da koy xulli bët ñàngal bu xale bi ñëwee mën na ko demal xale bi da koy daw bu ko bu duggee kër bi xale bi day daw ci keneen du daw ci moom ba pare bu duggee xale bi du daw lëmasut fu mu nekk xale bi dafa dem te ki nga xam ne dafa dafa am affection ci xale bi wan ko cofeel bu dugg kër gi indil na ko benn jus boo xaale na benn bonbon ah am na lu mu ko indaaleel bu ñëwee mu mu mu mu fab ko yëkkati ko xale bi daw laxasu ko mu daal di koy jël daal di koy yëkkati teg ànd ak moom toog teg ko ci kawam kooku fu mu nekk xale bi dafay nekk bu xale bi commencé miin bu ko gëjee gis da koy laajte turam lay tudd boobu turam lay gën a tudd ko turu papaam ak yaayam sax fa lu tax affection bi mu am la mais gis nga xale bu fekkee da nga koo terroriser moom it dalay moytu boo duggee ci kër gi mu dem fee boo nekkee fii mu dem fële boo ko nee kaay mu daw la lu tax mooy da nga koo terroriser psychologiquement ñemewu la loolu mat a bàyyi xel moo tax cofeel googu dafa am solo moo tax alayhi salaatu salaam loolu la jàngal li nga xam ne mooy al aqra ibnu xaabis at tamimi la ko jàngal xoolal moom nee na am na fukki doom mosu cee foon kenn fukki doom yonent bi xasan ak xuseen di ñu ay doomam mais ay sëtam lañ yonent bi alayhi salaatu salaam di dox diggante maam ak sët taxawaayu maam ak maam ak sëtam loolu lu mat a bàyyi xel alxadis saalih wal ishron vingt-troisième xadis bi li muy jàngale mooy salaamatu sadri mooy dënd bu set dënd bu set dënd bu set dafa am solo dafay bokk ci liñ gisoon démb mooy doomu aadama bi wala barki démb su xolam setee xol bi su baaxee nit ki day baax ku la gën xol moo la gën waxoon naa nit mën ngaa rafet mën ngaa rafet sa kanam rafet lool mais yaa fi gën a bon parce que sa xol baaxul mën ngaa ñaaw lool mais yaa fi gën parce que sa xol dafa baax moo tax alayhi salaam bi muy joxe mesure dana nit ki am na ci am na ci yaramam cër boo xam ne su baaxee lépp baax su bañee lépp bon waxul kanam gi de waxul kanam gi waxul kanam gi lan la wax xol bi la wax ki la gën xol moo la gën donte daa ñaaw ki la gën a bon xol moo la gën moo la gën a bon ñëpp donte ko rafet moo tax baaxaayu nit duñ ko natt ci apparence bi ci kanam bi mais ci xol bi la ci xol bi la xol boobu bu baaxee dafa war a refléter wu aussi à l'extérieur nit ku doon nit koo xam ne ku ko gis da ngay gis ci moom baax gis ci moom yéwén gis ci moom yaatu dal ainsi de suite loolu moo tax dënd doomu aadama bi aussi daal di mucc dafa am solo nit ki nga am dënd boo xam ne sa dënd dafa set iñaanoo soxoroo siisoo nayoo ah ñaawoo njort dafa am solo lu tax mooy jikko yooyu bu nekkul ci yow yow yaay gën a féex gis nga nit koo xam ne li ñuy wax bul faale nit ku féex koo xam ne moom dafa tranquille soo amee xam-xam amul problème soo ko rawee not amul problème soo amee alal amul problème boo amee oto amul problème boo amee kër amul problème amal soxna yu bëri amul problème amal njaboot gu bëri amul problème amal woloom bëri dérange amul problème lu tax mooy moom loolu du suuseem moom day am li mu war a am nga am li nga war a am jeex na mais nit koo xam ni boo ko daaxee jàng du am jàmm soo ko ëppalee xam-xam du am jàmm boo aayee informatique aayul informatique tey mi ngi wër fan lay aayee informatique soo déggee anglais déggul anglais amul jàmm yow loo am amu ko rek tranquille lu tax mooy xol bi am problème amul salaamatu sadr dënd bi setul dënd bi dënd bi setul loo ko ëppale rek mi ngi bëgg a dee nit ku mel noonu baaxut moo tax Abdullah ibn Amr waxoon nañ kan mooy Abdullah ibn Amr ñu waxoon ne Amr boobu mooy Amr ibn al-As nekk saxaaba doom ji di Abdullah nekk saxaaba radiyallahu anhuma qaal mu ni qiila li rasulillahi dañoo wax yonent bi alayhi salaam ne ko ayu naasi afdal kan ci nit ñi moo gën léegi laaj bi li ñu ko laaj yonent bi ak bëri te réponse yi du benn yonent bi li ñu ko laaj ayu naasi afdal ak bëri mais chaque fois tontu bi muy tontu boo ko teg beneen bi li muy tekki mooy nekkul ne yi muy tontu mooy boobu ku ci nekk rek yaa gën mais yii yëpp ay qualité la yoo xam ne ku ci nekk ci ñi gën nga bokk yi yi yonent bi tontu yëpp bu ñu ko laajee ayu naasi afdal ah am na xadis bu mu wax ni afdalu naasi anfaahum li naas ki gën ci nit ñi mooy ko ëppal nit ñi njëriñ mais fii waxul loolu fi lan la wax kan mooy le meilleur des hommes ku gën ci nit ñi ku gën ci nit ñi kan la am na foo xam dafa ne le meilleur des hommes ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci waa këram xayrukum xayrukum li ahlihi fii ayu naasi afdal mu ne kullu maxmuumul qalbi képp koo xam ne xolam xolam dafa weex tànn dafa set wecc saduqi lisaani làmmiñam dafa dëggu bu véridique la ci waxam xol bu set làmmiñ bu dëggu lan moo tax mooy ñaari dañu am rapport sa xol bu setee da ngay dëggu ci sa làmmiñ sa xol bu setul sa làmmiñ du dëggu parce que bu da ngay soxor iñaan boo soxoree iñaan doo wax dëgg da ngay sosal nit ki mais sa xol bu setee moo tax defar xol am solo bu sa xol defaroo làmmiñ bi day defar xol bi bu defaroo làmmiñ bi dafay defar dafa mel ni nga am serveur bu baax boo amee serveur bu baax da ngay diviser lu baax division bi day normal na mais soo amul serveur bu baax division bi day takk di am problème affaire yi fees machine bi buure planté et de suite n'est-ce pas mais xol bi mooy serveur bi mooy jox làmmiñ bi léegi xol bi bu fekkee set na làmmiñ bi serveur bi làmmiñ bi nga xam ne mooy diviser division bi làmmiñ bi mooy wax ci lay jaar li jaar ci làmmiñ bi day set lu tax làmmiñ bi li koy li muy joxe fan la koy jëlee ci xol bi lay génnee lay jëlee lii xol bi lay jëlee di wax xol bi li fa nekk lu baax lu set. làmmiñ bi lu baax lu set lay génne mais bu fekkee soxor soxor moo fi nekk soxor xol bi soxor da cee nekk làmmiñ bi soxor da ciy feeñ siis daane fi làmmiñ bi siis dafiy nekk iñaan dafay nekk ci xol bi làmmiñ bi iñaan da ciy feeñ xol bi daa fees ay saaga yoo fi denc làmmiñ bi foog bu saaga xol bi dafa fees ay xasaate làmmiñ bi foog bu xas xol bi da nga fee denc da nga fee dencal nit ki sosal koog jëw ko làmmiñ bi foog mu sos foog mu jëw parce que fii lay jëlee fii lay tibbee nit ki li nga ji moom ngay góob munoo ji gerte góob ñebbe xam nga munoo ji munoo ji mboq góob dugub mënta nekk li nga ji moom nga am xol bi li ci nekk mooy génn ci làmmiñ bi moo tax làmmiñ problème la mais pour pour résoudre problème mu làmmiñ nit ki na defar xol na defar na defar xolam nit ki pour mu résoudre làmmiñam na defar xol bi ku la gën a baax la xol moo la gën a am noflaay ci làmmiñam waaye ku la gën a bon xol làmmiñam moom la gën a sonal day jékki-jékki rek xol bi comme dafa iñaane benn waay jékki-jékki rek diw sax léegi nanga ma ko dal làmmiñ bi wax na doonul dëgg sos na yàq na der lu tax mooy xol bi moo am coxor ak iñaan jëmale ci waaj xol bi setul ci waaj te alayhi salaam waxoon na ci beneen xadis boo xam ne su ma jub dana ñëw ci kanam al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit jullit al muslimu jullit bi ñu xam mooy koo xam ne mbokk jullitam mucc nañ ci làmmiñam du leen xas du leen saaga du leen jëw du leen sosal du rambaaj seen diggante min lisaanihi wa yadihi mucc nañ ci loxoom du dóor ko mu warta dóor du jam ko mu warta jam du gaañ ko mu warta gaañ du rey ko mu warta rey du jël lu mu warta jël du randal lu mu war lu mu moom mucc nañ ci loxoom mucc nañ ci làmmiñ alayhi salaatu salaam mu nekk gën ci nit ñi mooy kullu maxmuumil qalb mooy borom xol bu set saduqul lisaan koo xam ne làmmiñam dafa dëggu xaalu sahaaba yi ne ko saduqul lisaan naarifuhu borom làmmiñ bu dëgg moom xam nañ mooy kuy wax dëgg waaye fa maa maxmuumul qalbi sahaaba lan lañ ci jublu mooy mu tasal leen borom xol bu set mooy lan léegi dëggu leen kan mooy xol bu set kon fii koo fi dégg mu naan xol borom xol bu set mooy nangam nee ko defal nangam yonent bi définir na ko ba pare soxla wuñ sa bos yonent bi moo dàq définir wala déet parce que sénégalais yi ñoom mesure yi ñuy mesure yi ñuy baaxale nit bokkut ak yàlla di baaxale nit nekkal nankatu sàngara nekkal musicien nekkal waykat nekkal facc fecckat nekkal mbandkat waaye boo ñëwee di baaxale di joxe baax nga yaa fi gën ñëpp parce que loolu tax na nga baax tax na nga baax déedéet mbaax mooy mesure yàlla teg ñu ciy nattee mbaax mbon mooy mesure yàlla teg ñu ciy nattee mbon ku ci nekk baax nga bii ku ci nekk bon nga ak ko mënti doon fii ni ñuy nattee mbaax mooy da ngay yor ab sant wala nga dëkk ab dëkk waaw sant boobu ku ko yor rek da ngaa war a baax kon xanaa yonente bi njabootam yépp baax mbaax du noonu léegi yonente bi kan mooy borom xol bu set mu ne huwa taqi xol bu set lu ci jiitu mooy doo kàccoor de lan ngay def da ngay am taqwa at taqi da ngay ragal yàlla an naqi day ragal yàlla ku ragal yàlla naqi ku set la xolam denc ci denc ci mbon mbon néew ci dafa set ci mbon annaqi mooy annaqaawatu min min assurur annaqi mooy annaqaawatu min assurur mooy set ci mbon lépp loo xam ne mbon la lu xol di denc ci mbon moom xolam da cee set ah laa isma fii xol bi bàkkaar denc fa bàkkaar bàkkaar néew ko wala baxiya bew néew ko bew wala xilla xilla mooy soxal rabbana wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufun rahim alxillu huwa alxasadu fi ala darajaati mooy ci xorteeg bu gën a kawe niveau bu gën a kawe ci coxor mooy alxil kon waa ji xol bi ak taqi xol bi ragal yàlla fa nekk naqi dafa set ci ci mbon la isma fihi bàkkaar newu ca wala baxiya xol bi amul mbew bewul yemu fa wala xilla iñaan newu fa wala xasad soxor newu fa parce que iñaan ak soxor dañoo nekk ñaar yu nduróo waaye am nañ différence iñaan xam nga lan mooy iñaan mooy waa ji day am bañeel ci nit ki da koy bañ ñu ne waa ji dafa iñaan soxor nag mooy da koy iñaan a pare di dox pour fexeel ko pour pour déstabiliser ko pour yàqu ko kooku mooy alxil mooy iñaan bi ci xol bi rek la yem da nga ko iñaane mooy waa ji vraiment mënoo ko supporter da nga ko bañ ci sa xol ci sa xol mais fa nga yem nag jéemoo dox pour pour gasal ko ay pax yàqal ko jéemoo yàq deram ah jéemoo mais xil mooy waaye da nga ko bañ ba pare nga dégg na waaye dafa am benn société bu ko réguler nga ñëw nga ñëw di fexe ba gis ki koo xam société bi waaye dégg naa yéen diw ci léegi yéen ci leen lay liggéey nga ne wax yéen am ngeen problème de diw téyewul làmmiñam wóorut moomul boppam du wax dëgg day yàq du denc secret am na fu doon liggéeyee nangam la fa def waxa waxa waxa wax yu bëree bëree bëri boo ko xill mooy da nga bañ waaj mais yemoo fa da ngay dox pour yàq ndax bañ bi nga ko bañ moo tax munoo munoo am tranquillité fii ak waaj mi ngi am lu baax foog nga yàqal boo ko déstabilisé wul doo am jàmm soo yàqulul waa ji doo am jàmm loolu kooku mooy kooku mooy kooku mooy xil ñun nag Sénégal jamono bi ñuy dund daanaka boo xoolee terrain politique bi xil la ñuy dund xil foofu la nit ñi àgg mooy da nga yéene nit mu feebar da nga yéene nit mu dee da nga yéene nit mu torox da nga yéene nit mu sànku da nga yéene nit mu alku da ngaa dépassé xaset mais yaa ngi ci xil bañatoo ko rek mais da ngaa bañ a bañ a nit ki ba bëgg nit ki maanaam na torox na alku su su amee su amee bonheur lu baax lu ko dal nga mer ci su amee malheur bu daanu ci kawam nga jubilé jubilé waxuma kontaan mais da ngay jubilé da ngay jubilé fàtte na yow loolu mën na laa dal loolu mooy xel yàlla na ci yàlla musal mbokk yi kon nitu nitu nit ku baax nii lay mel lii mooy nitu àjjana nitu àjjana mooy kii mooy koo xam ne xol bi dafa set ragal yàlla ko nekk loo xam ne luy tax muy def bàkkaar dañ ko ci xolam bewul ci kaw nit ñi bew ci kaw nit ñi xeeb nit ñi bew mooy nga xeeb nit ñi yëkkati ko ci seen kaw wala xil nekkul aussi koo xam ni dangaa iñaan wala dangaa soxor jëme ci nit ñi wala xasat nekkoo koo xam ne aussi dangaa dencal nit ñi ak ak iñaan alxadisu rabi wal ishrun الحديث الرابع والعشرون 24e xadis beneen jikko bu am solo boo xam ne jikko bu baax la ci jullit bi mooy kasmul xaysi mooy denc mer wan na mer mbokk yi fii ku fi mer wane ko jullit bi li ñu bëgg mooy ci yow euh, mooy nga denc sa mer gis ngeen su ngeen fexee ba ma mer di yéen ñëpp da ngeen xam ne mer na loolu mooy lan su ma meree kër gi kenn du am jàmm yéen xam ngeen loolu sax waaw loolu baaxul su ma meree xam ngeen ne école bi kenn du am jàmm classe bi kenn du am jàmm koñ bi kenn du am jàmm ku la sant loolu waaw soo meree tey nit ñi am jàmm yàlla mi ngi la tiim te yaa ngi def loo xam ni yaa ngi tooñ yàlla te yàlla moom mi ngi lay may jàmm de mayel nit ñi jàmm rek waaye man su ma meree kenn du am jàmm fexe leen ba ma mer rek merloo leen ba ngeen xool waaw yaay kan da ngaa xam sa bopp nit rek nga di soo meree li ngay wax wala li ngay def après da ngay regretté wu moo taxoon alayhi salaatu salaam waxoon waaji ne ko laa taxdab faradada miraaran laa taxdab laa taxdab bul mer bul mer lu tax mooy soo meree da ngay posé acte boo xam ne après daf lay indil regret wala nga wax loo xam ne après vraiment da nga naan lii nan laa ko waxee da lay indil regret moo tax nit ki sari dafa bëgg mu wan na meram moo tax mu ne la soo meree soo meree damal jàpp bu fekkoon da ngaa taxaw toogal boo toogoon tëddal pour mer mi rek dem pour mer mi dem waxaat ni alxadabu min asheytaan mer ci seytaan lay bàyyeeku seytaan moo koy rofu nit ci ci la dafaa gis nit koo xam ne li ci li li ci li ci reetaan mooy mer dafa nekk jikko boo xam ni jikko bu suufee la parce que da ngay gis nit moo mu mer ci loo xam ne waru cee mer waru cee mer nit ki lan la mer mooy mburu bi ñu ko jox mburu bu xonq la moom mburu bu weex la bëgg mu mer mburu bi beesut mu mer ceeb bi dafa manqué diw mu mer dafa ëpp diw mu mer dafa manqué xorom mu mer ndox mi ñu ko jox seddul mu mer ah abu ragalal yàlla kon mer dafay génne nit ki ci état état wu normal yóbbu la ci beneen état bu anormal moo tax nit ki war a éviter di ko def boo meree da ngay tuuti ci bëtu nit ñi da ngay tuuti ci bëtu nit ñi da ngay tuuti ci bëtu nit ñi parce que da ngay def loo daawul def wax sànni loxo tourné këdd suuf si yëkkati tànk màttu et puis boo meree da ngay ñaaw bët yi day xonq kanam gi gonflé wu deret ji day gën a tàng deret ji tàng googu muy tàng sa yaram tàng te nit ki boo yaramam tàngee daanaka fièvre lay am fièvre boobu day feeñ ci lépp moo tax nit jàmm jàmm dafa neex jàmm gis ngeen lu ko dàq est-ce que gis ngeen lu dàq jàmm wallahi jàmm dara dàq yow nga xëy nekk ci jàmm may nit ñi jàmm nit ñi may la jàmm nga mën a def sa liggéey mën a def say va-et-vient tranquille mais des fois nga xëy ñàkk jàmm mooy mer nga am fa waroon dem demoo nga waroon defi kuur doo defi kuur nga waroon liggéey liggéeyi woo waroon a monté monté woo ah loo waroon def doo ko def ndax mer gi la jàpp mer gi moo tax saa évité bëriwul njëriñ wallaahi mer lim lay yàqal moo ëpp lim lay defal waaw da lay yàqal da lay yàqal lu bëree bëree bëri des fois mer day tax nga gedd génn bureau bi bàyyi fi ordinateur machine yi dem capatu mer ba ba giif ñëw fekk perdre nga temps bu bëree bëree bëree bëri des fois mer day tax nga jël say bagage génn na da ngay dem foo war ta dem génn ba pare xool di xool après fan laa war a dem xamoo sax foo jëm xamoo sax foo jëm ah des fois mer mettre situation boo xam ne nga mer ba gedd añ bi après koy mujjee jënd biscuit biscuit ak añ bi lu daax mer añ dem jënd biscuit ah wala gaa yi demaat nga ñëw ci waañ bi di xool ndax xooñ des fi wala xees des fi te yow yaa geddoon lu la ko yóbbee mooy mer mooy mer dafaa gis bu génn këram gedd gedd lan la ma ko yóbbee mer mer gi yóbbee na ko mu mu gedd ndékki après di di xool ci yoon bi loo mën a lekk ak loo mën a yow yaa gedd affaire baa ngi foofu moo tax mer da lay yóbbu ci situation boo xam ne baaxul am na koo xam ne mer mer ñàkk war na meram moo tax mu dem kaso ñàkk war na meram moo tax mu dem kaso mer jàppanteeg benn waay jam ko paak jàppanteeg benn waay dóor ko jaasi mer jàppanteeg benn waay dóor ko balu fetal mer jàppanteeg benn waay ñëw toj otoom wala ñëw taal këram sax taal ko ndax mer ñu jàppale ci defeeral mer tax nga rey nit mer nga loolu nga xam ne bàkkaaru mën nañ la ci sanctionné ci àdduna nga am ci bàkkaaru àllaaxira moo tax mer baaxul nit ki da koy éviter mer tax nga saaga ko war ko saaga dépassé ko war ko dépassé manque de respect koo xam ni waroo ko manque de respect moo tax jullit dafay war na meram mooy mer maa ngi fi yow xam nga ne mer nga mais nga war na mer bi te yàlla tax wal kaadimina al gayda wal aafina an innaas wallahu yuhibu al muhsinin wal kaadimina al gayda gaa yi nga xam ne suñ meree dañu wan seen mer wal aafina an innaas nit ñi dañ lay tooñ nga baal leen yooyu ay grandeur la nit ki waroo wàcc ci ay bases ay jikko yu suufee da nga war a am ay jikko qualité yoo xam ni nit ki ki lay ki lay cherche mënu laa atteindre sax day cherche ba son day mujj jaaxle mais waa ji kii fan la nit di jaar pour am ko day jaar fu nekk du la atteindre da lay jéem a merloo ngay reetaan provocation bu nekk mu def ko yow nga wan ne ko man jàmm laa bëgg te jàmm mu dàq lépp man maa ngi ci jàmm yow booy nekk ci safara newal ci safara booy mer meral sa xol buy bax na bax man sama xol bokkut parce que bëgguma xol bu bax nekkal ci jàmm loolu dafa am solo mooy nit ki fexe ba dundam set waaye fexe ba mer gi mu koy wan moo tax bunt bi jàll muy salaamatu sadr dafa am correspondance ak ak bunt bi salaamatu sadr mooy dënd bi dafay set dënd bi bokk na ci li lay may mu set mooy kasbul xëysi ndax xarit ni mu ko toppalantee du hasard dënd sa dënd pour mu set da ngay wan sa mer il faut ngay wan mer soo dul wan mer dënd bi pour mu set day jafe moo tax kasbul xëysi mu ne an muaz gis ngeen fii fii la jàng xam-xam amee solo ñu bëri ci yéen su ma leen bàyyi woon ne leen an Muaz bii Muaz ibnu Jabal ngeen may wax kii di Muaz ibnu Jabal Muaz ibnu Anas al Juhani ci saxaaba yi la bokk donte du saxaaba bu siiw parce que bëriwul xadis yi mu nettali boroom xam-xam yi xamuñu ban det la juddu xamuñu ban det la faatu téere yi ko taraajiroon aussi bëriwuñ ci moom connaissance mais saxaaba buñ xam moo tax xam-xam dañ koy jàng de doo dem di liir ay téere rek di topp di wax loo xamut ah Muaz ibnu Anas al Juhani nekk bokkut ak Muaz ibnu Jabal suñu waxee Muaz nag ci saxaaba yi quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt dix neuf pour cent ci xel yi fan lay dem ci Muaz ibnu Jabal mais bul def xadis boo gis bu ñu nee Muaz rek nga jàpp ne Muaz ibnu Jabal la am na yeneen Muaz Muaz bii ci la bokk mooy Muaz ibnu Anas al Juhani xadis yi moo ko nettali waaye di Muaz ibnu Jabal bàyyi leen ci xel mais bañ ngeen jàpp ne Muaz ibnu Jabal Muaz ibnu Anas al Juhani saxaabiyun min as saxaaba mi ngi faatoo fële ci Syrie Syrie saxaaba yu bëri dañ fa faatoo dëkk boobu bu ñu waxee Syrie nag bu ñu waxee Syrie ci jamono ju njëkk ja mooy Syrie actuelle Palestine ak Liban ci cartographique islamique bu njëkk dëkk yooyu yëpp ci Syrie la woon mooy Syrie Syrie Syrie la tuddoon Suuriya Suuriya mooy Syrie Palestine ba ba Liban loolu lépp lañ doon tuddee Syrie mais tubaab bi mu ñëwee indi ay frontières séddale ah Palestine am Liban am Syrie am fu ñu ko yemale mais ci temps bu njëkk ba doo doon jàng borom xam-xam ñu ne la borom xam-xam tel ca Suuriya la boo ko xoolee tey actuellement dëkkam dafay tolloog Liban wala mu tolloog ay Khan Younes bi nekk biir Jenin ca Palestine ak bi demee noonu ci bàyyi ci xel kon Muaz ibnu Anas al Juhani mu ne anna rasulallahi na ko yonent yàlla bi salaa sallam qaala wax na man kazama xayzan képp ku wan na meram al xayz huwa al xadab képp koo xam ni wan na meram kazama ay xabasa mooy dafa dafa téye meram al xabsu mooy nga tëj dara tëj tëj emprisonné dara tëj ko léegi mer bi da nga koy tëj ci biir xol bi du génn du génn. man kasaba xaysan képp ku tëj meram képp ku wann meram mu dëppoog li aay bi wax wal kaazimiina al xaysa ñi nga xam ne dañuy wann seen mer yemuñu fa dañuy baal ñi leen tooñ yàlla ñooñu la bëgg parce que ñooñu dañuy rafetal te wallahu yuhibbul muhsinin mu ne ku wann meram mais wann mer bi ci ban façon wa huwa te moom qaadirun am na possibilité am na possibilité ala an yunfizahu mu wane dooleem ki ko tooñ mën na ko massacrer mën na ko wan ni maa la ëpp doole su fayoo mën naa métti mën naa tanfis mer gi c'est-à-dire mën naa jëmmal mer gi ci kawam mën na ko pratiquer ci kawam wan ko ko waaye daahu llahu azza wa jal ala ruusil xalaaiq mu daal di koy bàyyit yàlla tax mu wan na mer gi yàlla koy woo yowmal qiyaam ci kanamu nit ñi ci kanamu nit ñëpp ci kanamu mbindaafoon yëpp yowmal qiyaam xatta yu xayirahu yàlla daal di koy tànnloo min al xuuri ci xuurul ayni maa shaa lu ko soob ah loolu naqariwul de ah an ci ñëw laaj na lu am solo kon ku wan meram te moom dafa am possibilité possibilité wone mer gi mu won na ko te yàlla tax yoomal xiyaam yàlla da koy woo ci kanam mu ñëpp mu traversé nit ñi di ñëw ba ñëw yàlla gaaral ko xuuru ay ne ko tànnal lu la soob ne ko tànnal lu la soob kooku li muy tekki mooy fadlu kazmil xayzi yowmal qiyaamati ngëneel gi nekk ci dañ ci mer yowmal qiyaam ngëneel gi nekk ci dañ ci mer yowmal qiyaam tuyaaba bi mooy da ngay dugg àjjana parce que duggul àjjana mënoo am ci mënoo am ci lan xuurul ayn yi suñ nee diw yàlla koy tànn xuurul ayn li muy tekki mooy annahu daxala al janna kon min faraa'ili kazmil xayri duxulul janna bokk na ci ngëneel yi mooy dalay dugal àjjana soo duggee àjjana la la fay yàlla di fay lu mu lay jox mooy dalay fay nga tànn ci xuurul ayn yi du la soob sunu borom subhaanahu wa taala la koy fay ok loolu ku koy xalaat kon di nga war a mer ah di nga war a pratiquer mer wan ko woon nit ki nga bàyyi ko te yàlla tax di xalaat yowmal qiyaam dañ lay fay di xalaat li la yàlla di fay yowmal qiyaam tayib comme laaj bi mu laaj kon suñ ne kii nga xam ne dafa def loolu bu ñu yomal xeex dañ ne naan ko tànnal ci xawrul ayni lu la soob kon kooku li ñuy ñuy sous-entendre mooy góor la noonu wala déet góor mooy tànn xawrul ayni yu bëri waaye ki mën naa wax waa su dee jigéen nag kon jigéen bu wann meram nag ñu ne xadis bi zaahiru xadis bi li muy li mu li muy wone ci lu mu jublu mooy ci ku góor ki parce que moom la ñuy tànnal xawrul ayni loolu mooy zaahirul xadis loolu mooy xadis bi li ci feeñ ci biti parce que xawrul ayni bu góor amut. xóorul ayn bu ñu ko waxee mooy ay jigéen yu rafet yu yàlla sàkk ñu nekk àjjana nga xam ni dañoo bëri lool suñ borom subhanahu wa taala daf leen di daf leen di booleeg góor yi fay dugg ñu jël ci ñoom donte góor yi jabar yi nga nekkoon aduna bu fekkee nekk ngeen ba ni ngeen di ba ni ngeen di faatoo tàqalikoowu leen góor ki su duggee àjjana jëkkër ji mujjee nekk borom këram ci aduna mooy nekkaat borom këram ci àjjana comme ni ko xadis yi wane loolu bokk na li tax yonent bi alayhi salaam ay soxnaam bi mu faatoo kenn jëlaatu leen yaa Aysa xale la woon mais kenn jëlaatu ko parce que soxna yonent bi la ci àdduna mais mooy nekkaat soxnaam àllaaxira wa azwaajuhu ummahaatuhum te suuratul ahzaab soxna yonent bi yaayu ñi gëm yàlla lañ dañuy taxawee palaasu yaay ku la taxawee palaasu yaay mënoo ko jël so borom xam-xam ñu ne su dee jigéen la shakk boo jëlee xadis bi boole kook aaya bi wala kaazimiina al-ghayza wala aafiina ani naas wala yuhibbul muhsiniin da ciy dugg mooy moom yàlla dina ko fay tuyaaba beneen boo xam ne du wuteeg du mën a bokk ak bi parce que jigéen moom mënul am ay jëkkër yu bari du ci àdduna du ci àllaaxira benn jëkkër la mën a am nekk ak moom ni mu mën a amee jëkkër yu bari rek mooy sëy kii tas sëy kii tas sëy kii tas ñu ne am na jëkkër yu bari te loolu du way bu baax du way bu baax ci jigéen jigéen buy sëy lu bari di tas du way bu baax ci jigéen waaye su dee nag ci àllaaxira benn borom kër lay am mais borom kër gi nga xam ne amoon na ko ci àdduna mu mujjee nekk borom këram ñoom ñaar ñu am dugg àjjana mu nekk borom këram bu fekkee loolu amul dañ koy wutalaat beneen borom kër biir àjjana yàlla moo koy wutal kon wan na mer mbokk yi dafa nekk jikko bu am solo. wan na mer alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon la ko yéeféeru màkka yi tooñ mu wan na meram ñaata yoon la nit ñëw def lu ko merloo mu wan na mer ji kenn xamut nu mu toll moom alayhi salaatu wasalaam moo tax te bokk jikko yi nga xam ni qualité la ci ab julit qualité la ci musulman bi mooy du foo meree rek daal di koy wane dangaa war a moytu dèjà mer laa tax dab mais soo meree aussi wal kaazimiina al ghayza wal aafina ani naas wannal sa mer man kazama ghayzan fàttaliku ko wan na meram kon deel wan na mer mais nit koo xam ne yow foo meree foog woon nit ñi damaa mer waxoon naa leen bu leen ma merloo te yéen yéen a ma merloo te xam ngeen ni su ma meree kenn du am jàmm baaxul nit ki na koy moytu moytu loolu tey kon dañuy taxaw ci xadis numéro 24 bu ñu fi yàlla bàyyi bàyyi leen fi bu ñu ñëwee suba daañ tàmbali ci xadis numéro 25. waaw nooy def ba doo mer lu am solo la mooy xadis bi nga xam ni yonent bi alayhi salaam dafa wax waaye ne ko laa tax dab laa tax dafa borom xam ñu ne tekkiwul pour mer parce que yonent bi ci boppam day mer yàlla day mer wa ghadiba allahu alayhim wa laanahum wa adda lahum azaban alima yàlla ci boppam day mer yonent bi day mer ba pare yonent bi nee na bul mer yaas nee na yonent bi su meroon kanam gi day xonq kon moom day mer ba pare mu ne bul mer xadis bi ñu ne lan lay tekki laa taxadab ay ijtani bil xadab mooy moytul di mer moytul di def lu mer am na nit koo xam ne da lay leeral soo àndee moom da ngay mer éviter ko wala moment bi soo ci àndee moom da ngay mer moytu ko am na place boo xam ne soo ko demee place bi soo ko demee heure bi da nga mer am na koo xam ne moment bii nii yéen ñaar su ngeen waxee da ngay mer ah situation bi nga nekk nii am na foo xam ne soo fa demee nii di nga fa xuloo mer il ko éviter loolu. lépp lu koy indi rek daw ko éviter ko yow yaay daw lu lay merloo boo koy daw wallaahi da ngay gis da ngay tranquille am jàmm parce que jàmm dara daax da ngay féex te ñàkk a mer rek day defar sa kanam mais chaque jour mer kanam gi bu yàggee mu def ko mel ah. estati laa chaque laa chaque lépp lu lay merloo estati whatsapp ak profil whatsapp ak profil instagram ak ci yem lépp lu lay merloo moytu parce que am na koo xam ne comme bu xoolee estati moom ay bokkaal la fay dafa ki bidaa wax ji garaaw la fay wax yoo xam ni day tàngal sa xol day jël nit teg ko place yàlla yëkkati nit teg ko ci kaw yonent bi alayhi salaatu salaam kooku éviter ko loo koy déglu et puis da nga koy may ay vues nag koy may ay vues médiocrité médiocrité kenn du ko kenn du ko promouvoir nit ku si promouvoir médiocrité yow bu ci participer éviter ko koo xam ne li muy li muy publicité nii ci compte YouTube am médiocrité la te lépp dafa médiocre te ay vues lay wut léegi lu tax ma lay jox sama vie man sama vie doo ko am. gis nga affaire nangam seetaanal ma ne ko baax na su ma demee ba gis mu nekk vidéo bu ñu tele seetaan ba wàcc ma gis ne am na lu ma ci war a seetaan ma seetaan ci li ma ci soxla pare bàyyi pour xam yan leçon laa ci tiré wan ban ban position laa ci adapté mais lu médiocre lu nekk nga bëgg ko xool bu yàggee ba moytul nga médiocre yëpp nit da ngay bëgg lu baax di dox ci lu baax di wax lu baax di xalaat lu baax di dem fu baax di ànd ak ñu baax di fréquenté ñu baax nga baax contraire bi su amee noonu dañ ko dafa éviter lépp loo xam. day tàngal sa xol day merloo sa xol éviter ko am na wax yoo xam ne soo ko waxee dalay merloo éviter ko am na moment yoo xam ne soo ci soo ci amee contact ak nit wala nga jàkkaarloo ci ak nit wala nga ànd ci ak moom wala ngeen échange ci mën na indi mer éviter échange ci moment boobu ba situation bi dal wallahi da ngay am jàmm nañ wut jàmm di wax jàmm di dox jàmm di jëfe jàmm di tasaare jàmm di dund jàmm dara dara dàq wallahu taala
barakallahu fikum ustaz xam naa dañuy yemale jotaay bi question yi ñoroon xam naa incha allah dañ koy bàyyi beneen jotaay ndax sallallahu alayhi wa sallam